Abdullah Vargas. Lali. Hey, put it back here. Put it back here. Put it back here. tànk yi mënu ko jox wala lii la la lii. sa tànk yi daa bëgg nga téye ko gannaaw lii la la lii. yow yow lu tax a ñàkk jom. damay añ. ñàkk nga jom. yaa ngi bëgg a ñàkk jom mën na ko ma fàtte sax. oui xaaral ma xool. xool xaw ma génn. Mama xel moom. kaani moo koy yóbbaale ndax mu sax. yow eh yow defal li nga def ay kaani kii boo ko fekkee yàlla naa dee yàlla. boo ko bàcc ba ma ndogo ndogo fekkee. waaye ba ka ñëwul fii rek añee ko si biir. tax ñaax jox waaye bii moom dama koy def tay. wala kii kii lu ko daal. wala yow yow yow lu ma la gëree woon. da ngaa gis mbaax. yow at yow weeru na ma koy gis mbaax yow weeru yow. su ma man man man man man man man man kay maa woori kër bu la man kese dañu woor benn baax benn baax waaw. Ah. mais eh, yow léeg-léeg ñu ne waaye waaye yow ku réew nga yow sa daal ci ko seen ku laal waaw yow ku réew nga yow yow dafa laa woon. ah maa benn baax. yow ku eh, yow yow da nga réew benn baax. benn baax. Oui, papa. Papa. Eh, eh, eh, eh, tu vas savoir, non, oui, papa, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, papa FPE yeeg FPE. yow ñaanuma yàlla jur la yàlla. FPE yeeg FPE. FPE yeeg kii sama copine na maa moom ñooy ànd FPE yeeg. léegi nag laa lay wax mooy kii bi ginnaaw si tey dina da génn kër gi. génn su ma la waxee la kii du génn kër gi papa. kan kii du génn kër gi ah. kii dina génn kër gi. kii sama copine la kii du génn kër gi de ah. tey sa kay na papa FPE yeeg. seen paax yi pour la yéen ñaar ñi. waaw ah, yii moo lay fooy. Eh. benn baax ah. yéen ñi xam nga ku dëkk yéen sa sa bakkan a ngi ci xottu mel. waaye euh, papa ñun sax risqué wu ñu daayal ñu risqué wu ñu daayal bàcc yaa suy yaay waaw. Ah. kii dina génn kër gi. papa fekkee yaa wax. papa xool na bay waay. dégg nga am am dëkk benn ba xam. Eh, day bàyyi. donc soof nga ni ma yow. Eh, yow yow yow yow ni ngay bàyyi fay wala suuf yow doo rek dangay génn kër gi ah. Papa feppee yëpp ki sama copie yooyu yow da nga sama yoon yow yow yow da yow da nga dul rek la ngir yàlla yow booy ñaar. Papa feppee. yow lii laa la ñu. Papa feppee de feppee yaa Papa feppee de feppee. ba kii sama papa trois ans yow ma de. daa mën a fen. wuyu ma ah bi ñu génnee ñu woo gars yi booy bu xees. eh. jërëjëf yow yow yow yow yow. Pape fay bee. xanaa ci la ñu xanaa amul ndax. fay bee yaa fay bee doo fay bee nga toog nga taxaw ba yëg yi waxee waaw yow mel ni waaw yow yaa xam ne. jërëjëf yow yaa xam am ñaar. yow yaa xam yow. war na dëgg war na dëgg dëgg yow mu waay yow. ah dëgg yow yow yow xanaa yow ñëw rek. maa ngi lay maa ngi lay. yow yow yow yow yow yow bu indisposé la yow. yow xamadi nga ah. waaw yow li ma tax xam ñàkk xamadi sa bopp. sa kanam gi mel ni buntu préfecture. papa da ngeen fee bee wala doo fee bee yow yaa bëgg a xam. waaw papa baax na. xam waaw oh yes. ñàkk oh yes. xam fay googu naay wax nga dëgg. dama lay saako mel. waaw ah taatu ay yooyu. ñaata la xaaral. man man xaw ma la ma yàlla di bàyyi si saa am njaboot man man lan laa la defal ma koy jox lii. benn ba. mooy lu moom la

sama xaalis. waaw xaalis dafa yee. eh lan yow. xaalis dafa yee wóor na yaay. ñaar fukki junni. waaw fukki junni ah bàq nga njàkk doon. dama ngaa defoon sam poos ngelaw yu bay ma wut ñaari xëy def ko sam poos def fi benn def fi benn après yeeg ngelaw yu bay jooy puus ma te maa puus te maa tànnee xaalis bu war après ngelaw yóbbu ko. vraiment tey mi may xaree doo xaru tey mi may xaru. oui papa. ba kii rek la yàlla mi tey mi may xaru man. waaw waaw waaw waaw waaw waaw